rafetlu bu baax teewaayu ministre Khadim Diop bii toog ci suuf te nga xam ni danaa koy wax toujours ni ko sëñ Bachirou ëpp na waaye sëñ Manar doy na moom itam Mbakke taxawaayam ci wetu nijaayam taxawaayam ci yoon wi ak taxawaayam ci président de la république rafetlu nañ ko bu baax a baax moom nag tubaarkàlla moo dalal gan wi ñu déglu nag ni ma ko Cheikh Mamadou Bachir mu sëñ Moustapha waxe woon dañuy déglu Cheikh Mamadou Bachir moom sëriñ Abdoul Khadir moo yor kàddug sëriñ bi waaye li tax mu yor kàddug sëriñ bi sëriñ Muntaxa doyloo ko jege na lool soxna jaar kii bëgg a wax jege na lool soxna jaar sëriñ Abdoul Khadir sëriñ Bousso bi soxna jaar sëñ Balla mi jur yaayam sëriñ bu sóori ak soxna jaar bokk ndey ak baay jege ñu lool jaara dafa am fu nu nekk rek te ñàkk ku baax muy sëñ Cheikh Dar Rahman waaye kon bala ma laa jox rajo bi danaa la wax yaay kan yaay jege jaara ku munta ku munta gàkkal alxuraan munta gàkkal sa sëñ Bamba te bul bees gan gaa yi ku leen raw ñu dabee law la ñun sa sa maama lay liggéeyaloo raw nga mu bu déglu gan sëñ gàkkal alxuraan mënu laa gàkkal sëñ bi bismillah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موحنا بوكي جلجي فيتيو اك بوكي طالبي نيلان دي نيو تتو شيخ محمد المنطقة وخليفة العام لطريقة المريدين di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci kilifteefu Sëriñ Isaaxa Mbàkke mi toog di rakkam te teewal ko ci jataay bi di kilifa jataay bi nee kon sëriñ bi mu ngi nuyu ñépp di dalal ñëpp ci jàmm di nuyu mboolem njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñëpp a fi ñëw njabootu Serigne Touba nag bu ñu ko waxee képp ku yaakaar Serigne Touba rek tàbbi nga ca biir waaye ñu di ci tànn ñenn ñi teew ci jataay bi bu ñu ci tuddee ñett rek moo mën a yóbbaale ñi ci ما شاء محمد المصطفى وما شاء عبد الله الحق السليم بسير بك ما شاء محمد المصطفى أكثرين السليم بك مبكر ومسلم محمود الجبه أكثرين عبد الرحمن ومسلم شيخ جيل فاطمه mboolem njaboot bi سرين sëriñ bi يب, na di sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam leen ne jotaay bii ñor na ko lool ndax moo fi Sëriñ Tuuba moo fi Cheikh Mouhamadul Bachir kon lu ñuy def fii moom lañ koy defal xanaa kon nag mi ngi nuyu ñëpp ñoo tàbbi ci wax ji nag

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نحن خنا ñu delluwaat ko foofu rek natt bi ci aaya ndax bis bi waajuram bu tedd wa di bàyyi ko di sëriñ Abdullahi borom dël bi ñu ngi ko fekk ci fukki at ak ñett mu doon xalifa ci fukki at ak ñett loolu bëriwut ci yoon wi ba tey mu des juróom-ñaar fukki at ak ñaar te yàlla dimbali ko it ndax ku jote ak xilaafa foofu nga jàng ba xam li nga war a xam ci diine tarbiya wu ba mel na nga war a mel loolu ndimbalul yàlla la kon moom jëmm la woon joo xam ne bokkoon na ci ñi sëriñ Tuubaa di puugare woo ci ak njabootam ndax yàlla dimbali na ko ni mu feeñ ba niñ ko noppee gise yàlla def na mas sa def lu naqar yàlla loolu nag yombut loolu tawfeex ju la doon noonu ab jàmbur di ko nangoo liggéey doon jëmm joo xam ne kenn mësu koo dégg ci mbiri àdduna doonoon jëmm joo xam ne itam intervention kenn mësu koo dégg dafa nekkoon ci liggéey ak jaamu yàlla ak doyloo la ko sëriñ Tuubaa defal kooku nag kon buñ ko ñaké dañuy japp ne yoon wépp ko ñak yalla def na bi mu dé ba wara tukki mom mi mom Cheikh abbas mom la ko Cheikh Mamadou Mountakha booleel ngir ñu top tool ko lu ko mën a ba mu ko xamé ba nga nii keroog la mas a dégg yitteem te sëñ Cheikh Bass nee na jàppul ne kenn mas naa dégg yittee sëñ Cheikh Darou Rahmane nee na loolu nag sëriñ bi am ci yërmaanu ji rëy ba mel na suñu borom da koo xamaloon lañ nar a xew ci moom nonu kon yàlla ko suñu borom dolli ay leer te taas na ci barkat te dëgëral ak njabootam gi mu fi bàyyi di nuyu nag ki nga xam ne moom la fi président de la république yónni muy Aly Ngouille Ndiaye di ko yóbbante lu yóbbu sëriñ bi ci président ci taxawaayam yu yitteem ak lépp loo xam ne yitteem tam xam ko lu mu man mu def ko ba ci mbirum sëriñ Cheikh moom moo ci mujj kon sëriñ bi nee na mi ngi koy sant di ko gërëm di ko ndokkeel itam ci yaakaar ji réew mi amaat ci moom ba tànn ko dagaar ko na mu di ko ñaanal sunu borom kàttanal ko ba mission boobu yi moo am ci ndam na mu ko bëggee itteem lépp mooy Pastef ak nit ñi dellu ci passé kon nag li ci ëpp solo mooy képp ku digle wala ngay tere la Sëriñ Tuubaa waxoon ne war nga caa góorgóorlu bañ ña ngay jiite seenum xel di dal ci la nga di digal moom sëriñ bi noonu la ko yàlla defal képp ku topp ci ginnaawam sama xel dal na ci moom ndax li muy digle moo cay jiitu ndax moom ku ne xam na ne bi fi ay kilifaam nekkee dafa mel ne ku amul amul bëgg-bëgg amul xalaat léppam mu joxe ko ci ay kilifaam danaan wax ne bu may jëm ci sama kilifa dama koy bàyyi sama jëm bàyyee ko di moom mais loolu nag

am na kenn ci rakkam yi bokk ci ñi nekk jëwriñ ci kër yi Sëriñ Tuubaa wax na ko sax bas ne ko mbirum Muntaxaa dafa mel ne bi mu doonee Sëriñ Tuubaa dafa mel ne li ñuy wax bushra li ahli sama wal kullu yaxtaaru nee loolu la suñ borom defal Sëriñ Muntaxaa nee moo tax ñëpp maas ci wóolu ko xol yëpp nangoo nee loolu nag taxawaayam ak jëfam moo ko ko may nee na bu yàggut da koy wax ne ko sëriñ bi de li ma seetlu ci yow rulul ak sa naafile yi ak alxuraan ak xasaay bi ak bëgg ni ñampaseet gis naa ne du sa nee na mu ne ko yaa ngi may bëgg a kon nag sëriñ moom nekk kon nag yàlla ko suñu borom bàyyi ba naal nga xam ne am na ko jiitu di bi muy tabax mu tàmbali ko woo ci taalibe sëriñ Tuubaa si ko ci yàlla ko suñu borom dimbale ba naal mu àggale ko ba mu sotti ba mu ubbi ko ba tàmbaliwaat geneen mottali naa li nga xam ne itam kilifaam ko bàyyi woon na ko fi muy Cheikh Sidi Mokhtar kon yàlla ko suñu borom bàyyi nu yàgg topp ci ginnaawam te yàlla dimbali nu itam ba nu fexe ba bañ a juyoo ay ndigalam ndax bu nu ko defee mboolem li nu bëgg yàlla dina ci dimbali ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne nit ki mi ngi ci kanam mi ngi ci digg bi mboolem li muy bëgg te di ko wut te di ko fexe te ko sàkk guddi ak bëccëg looloo ngi ci kanamam mboolem li muy bañ di ko ragal mi ngi ci mu ne waxtu wane ñokket jëm jëlal sa borom digal mboolem li ngay bëgg te di ko wut te di ko fexe te di ko sàkku guddeeg bëccëg loola ne la mutuma geesoon na ko fu ñu jëm mboolem mi ngi te di ko watandiku guddeeg bëccëg loola ne la mutuma geesoo bokkunu fu ñu waxtu woon ne ñokkee nag jëm ci la sa borom tere mboolem mi ngay bëgg te di ko wut te di ko fexe di ko sàkku dégg ba njëkk waaw ne la matuma jaay sool bokk na fu mu jëm bañ na te di ko ragal te di ko wattandiku bu dégg ba njëkk loolu ne la matuma jaay sool ma bokk fu mu jëm nee na loolu kon ñëpp ci war a bàyyiwaat xel dellu sunu bopp ndax sëriñ bi kat jotaay yi mu daan toog fi di wax arab yëpp génn loolu Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne nit kaa ngi nii daal di bind ak miim ci kanamam bind ak noon ci kanamam ne nit ki saa su xëyee di sàkku addunaam ji di ko dàq te ko jot mukk àllaaxira di ci gannaawam di ko dàq te faaw dana jot daal di xam nga nuy mujjee àdduna dem bàyyi la ko àllaaxira ne ruus jàpp nee na kon de nit ki bu bëggee lu koy amal njëriñ adduna ak àllaaxira na wattali ko te daw addunaam ji ñu xam ne da koy dàq te du ko jot te dëgg dëgg ma la àllaaxira ji nga xam ne da koy dàq te faaw mu jot daana waxit ne adduna façon naaru góor la oo xam ne saa soo xëyee di ko yebal te doo ko war mu daan la waxit ni loolu dafa mat a bàyyi xel ndax fii jamono toll la in lam yantahi al munafiqun والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الى خليل ملعونين اينما سقفوا اغيثوا وقتلوا تقديرا نيغا خامني قاتو هناك داني نيان يوب موي نافقي نيو نيو سن بروم دلين تكو نيغا خامني ايتام سن خولي جانغورو جينك نيو ني دوني يورمو نا واخدو هناك

أن تشاع الفائدة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ما قالوا بطوة سيدو بعد الله جيل البري أي تجن لا بتجن جوجي بتجن جوجي جيل البري أي تجن لا بتجن جوجي gudd fan ne ko fi bàyyi àjjana ko ma teeru leen dalal leen waaye ne dee leen mooy safaan ba ndax bu jógee gàtt fan ne ko dooma fi bàyyi sawara ne ko ma teeru leen dalal leen kon dee leen mooy tooñ waaw kuy tooñ bu mujj waaye kuy fay yuddu ñoom waaye kon li am solo mooy dellu ci yàlla jël suñu lépp nag. te jël suñu lépp nag. suñu passé fa suñu lépp. ko Sëriñ Tuubaa. ndax Sëriñ Abdou Lahad Mbacke wax ne. boo amee ko ndox. te bëgg a naan. bëgg a sangu. da ngay ku yor géej. da ngay fekk ku moom. kenn mënatu la caa la nga soxla lépp da nga ko ci kon nañ jël suñu lépp. jébbal ko serigne touba mu defaral ni ko tey defaral ni ko la te mom waxon na ne serigne touba waxon na ne kuma ma sa lepp ma jël sa lepp defaral la kuma ma jox sa lenn téye sa lenn la ma la ma jébbal ma defaral la ko ma jëlee sama maam jox kon nak dana war a jël jëfal ko sëriñ Tuuba te xam ne dañoo jaayante ak moom adduna ak àllaaxira te lu ñu jaayante ak moom ak njëg la ñun bu jaayee dara te yaakaar jot njëg lan jaay moomatu ko kon nañ xam ne moomatuñ suñ lenn moomatuñ suñ adduna moomatuñ suñ àllaaxira suñ lépp nan ko jëfal sëriñ Tuuba mu defaral ñu ko adduna defal ñu ko te xam ne kenn ku fàggul na la loo xam ne mënuloo ko sa bopp ndax bu fekkee loo bëgg mu yomb la la wutaleeg say nawle sa sëriñ Tuubaa rek koo génn ceew itam dara du ci des te waxoon na ne li ma leen fàggul mooy ku ci dund am barke ku ci ku ci faatu tàbbi àjjana di dee seen xisaab te loolu nag faggalu ko jabar boppam taalibe yëpp la ko fagg ndax waxoon na ne dañu ko laajoon ne ko nee daa wax ne sama demel mutakallim yi ma yi ngeen dégg ma di ko wax bu leen di jàpp ne sama jëmm ko moom képp ko aju ci rek te jub tàbbi nga ci biir loola kon nag yàlla na tàbbal ci addu xalb nafsi wa jamii ahli si jëy bi afdal li wara sil fadli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nañu fasaale président ca biir li mu simbal lislaam lépp ak réew mi mu yeggale ko dana ko yeggale di ndax fi mu jaar la min ba